Anyways.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 ne dina dagg ay awraam <laughs> ma ne ndaw si yemul foofu de ndax nee na tamit mu ngi war wujj yu ko jëkkër ji takkal te bu ko gisee dina xam ne lépp dëgg la ma ne ñii de xaw ma nu ñuy bokkee kër mbir mi ma nga xewee ca mbuur couple boobu nag nee ñu 2021 bi la ñu marié doon dund bànneex good fine ba ab doom bu jigéen sax mujj cee juddu waaye daal keroog ba jëkkër ji takkee ñaareelu tubaab la problème yi tàmbali <laughs> dañoo fiir de ndaw si moom mel ni ki ñu xabtal dëkkee traqué ñaareelu jëkkër facebook bi ñooñu ndaw si benn bés ay 5 kër du la woo jëkkër ji di ko laaj extrait doom ji ak portable ndaw si yamul foofu ñeeñu bàyyi waxtu 6 jote ci la dem ca parking ba jëkkër ji gaare otoom am di raak ak moom raak bu metti ñu naan déeta waay mu génnee paaka naroon na jam jëkkër ji ci put ma ne ko boo dawul da nga dee de naka noonu ci la ndaw si jëlee buntu oto jëkkër ji dal di ñaari baaraamu jëkkër ji ba mu mujjee damm ma waxaat ko boo dawul dee de ak loolu yëpp jëkkër ji di muñ ndaw si dellu si ñëw fekk jëkkër ji band ñaari baaraam yi mu taxawaat joxar bi ko di ko menacé ne dina dagg awraay jëkkër ji <laughs> ma ne jeexagul dee ndax fiiraange ndaw si yemul foofu ndax dafa mujj porte plainte jëkkër ji di ko toppee coups et blessure ci kanamu yoon nag ndaw si expliqué na ndax nee na jëkkër ji ci am mil service la ko fekk dal di koy doxaan naka noonu ci ñoom ñaar la ñu d'accordé ba sëy ndaw si nee na waaye ñeenti weer la ñu sëy rek mu découvrir ne jëkkër ji am na keneen ku muy doxaan <laughs> yéen it bàyyi leen doxaan am jabar ba pare di doxaan ca kanamu yoon ni ndaw si teg si ne jëkkër ji da ko abandonné bàyyi ko moom ak doomam ba loolu mujj ko traumatisé na tamit jëkkër ji ci diir bi ñuy sëy dóor na ko ci juróom benn yoon fi mu ne nag moom ndaw si li muy réclamé mooy ndàmpaayu juróomi million <laughs> ma ne ko dey ndàmpaay daa xew ci réew mi waaye avocat jëkkër ji tamit wàcce ndaw si ba suuf la def ndax nee na kër gi jabar gi dëkk jëkkër ji ci boppam moo koy fay ndaw si manqué wul dara problème bi kay mooy ndaw li mu munul supporter mooy jëkkër gi takk ki mu takk ñaareel avocat bi teg ci ne ndaw si mook jëkkër gi sax dëkkuñu ci même quartier te yenn saa yi ndaw si day fekki jëkkër gi di ko indil ay attroupement moom daal ndaw si xeetu coono bu ne la koy teg ba ba sax mës na ko fayloo ab bor boo xam ne kenn xamul bor bi boru lal bor baa ngi toll ci un million sept cent mille jëkkër ji ngir daw coow bëgg a moom tax na mu fay bor bi ngir coow yow bañ a am ay waay yéen ñi jigéen ñi de mooy loolu avocat bi teg ci ne jëkkër ji mësu ko dóor waaye loolu it mën nañ ko dégg de dëkkee topp sa jëkkër di ko tifaare yi saaga nday ndax takk gi mu takk ñaareel ut baaka bëggoon ko ko jàpp ñu naan déeta waaye nga coincé ay baaraamam ci oto ba baaraam ya nar a dam loolu yëpp mu taxaw di xool ñu naan déeta waaye nga porté ko plainte ne dalaa dóor ay xam nga ne ku bu la doon dóorit leneen lay xew lii rek moo tax du m takk ñaareel mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz